kaay bi daal di ne ko tey Sénégal ndam la ñu soxla ca ba fu sam Tribune Sport daal may xamal ne diggante Sénégal ak Malawi la ñuy waxtaanee de ca CAN 2022 bi la ñeenti waxtu ci ngoon la ñuy daje suñu gayndey ak Malawi moomee cadre ya ñëpp ñëw nañ ca rendez-vous ba Pape Gueye dina bokk ca jongante bi ak gaynde yi ndax FIFA teggi nañ daan nga nu tegoon ca ndoddam terewul ña Covid doon ca équipe ba ñëpp wër nañ équipe ba mat na Aliou Cissé ngay lay de Tribune ne ma ngay lay de ma ngay xamle ni li dal Algérie mën na dal bépp équipe bu nekk ci kan bi en tout cas Sud Quotidien ma ngi may xamal ne sunu gayndey daal ndam lañ leen sant le quotidien le quotidien ne Aliou Cissé day xam na sénégalais yi bu baax tey bu leen joxul ndam lu ko ca fekk moom Cissé ngaari njar mbeew mooma laas yéene xamal ma ne sunu gaynde yi ñaar nag la ñuy xaar ci ñoom tey ñu daal di am ndam ngir mën a qualifier ci huitième de finale ba waaye tam mën a jiitu ci seenu poule booba duudu war ci critique yéene kaay ma ngay xam ni waajal leen te xam ni violence gi dakagul ci langu politique gi de 24 heures ne ma ca kër Massar kawam moom ak doomam ba damm loxoom moom Seyni Fall mi tribune yéene kaay ne ma maire yi day lu ne mën ngeen ko ca xaar diggante nag ñoo xam ne dëgg-dëgg gëm nañ li ñuy wax te fas nañu yéene liggéey seenu gox waaye tam yéene kaay dee média bi ne ma am na ay naxee mbaay yoo xam ne moo ci am de am na ñoo xam ne nag dara taxu leen ut poste yi lu dul nag seenu privilège bopp moo tax lu toll ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróomi poste maire ñu koy xëccoo ma Abdoulaye Diouf bilan yi moo tax nag ñu dem faral Diouf Sarr ndax Khalifa Sall lorul Barthélémy Dias laaj samp na turbine yéen kaay ne en tout cas Barth moom ma ngay doxal de ma nga woon ni ki démb ca Dakar Plateau def caravanam bu am jom dem ca digg fieefu àllu ndooy samp fa ndëndëm turbine ne ma waxtu wa muy dëkk keneen bugaan géy dane gëm sa bopp ñu ngi koy dëkk ca Mermoz Sacré-Cœur waa gëm sa bopp saa bu ñu yeewoo ñu ngi ci diggante caravane ak visite de proximité lépp nag ngir bëgg gañe mairie Mermoz Sacré-Cœur ca Mermoz Sacré-Cœur Papa Diop turbine yéen kaay ne ma ma nga fa woon moom maire bu Ndakaaru wóor mairie boobee lay xëccoowaat Papa Diop ne li ma gis ci terrain bi ak lan ma wan ca campagne baak léegi xam naa ni ndam la ñaar fukki fan ak ñett dee su ko laam-laamee firi rek bàcc lay doon daal di talal ba mairie bu ndakaaru Papa Diop xamal way laagoy Médina yi ne leen handicapé yi ndakaaru yi day bokk nañu ñi ma yitteel lool ci samay programme te ba ma fi nekkee maire maa yombaloon seen dem ak dikk duma ma ca yem bi yoon dama leen di jébbal ay marché ci matériel yuy setal waaye tam jébbal leen koppar goo xam ne di ngeen ci mën a xool lu ngeen ci liggéey laas yéene kaay ne ma campagne bi dañ lay jeex daaw dëggay ca Pikine Est ma ngay tuumaal Isaaxa Diop ne dafa di tourner ñaari milliards Ousmane Sonko ci direct news di tuumaal Lat Diop xamal ko ne ba ñu nekkee ENA ab nulaar la woon rax ci dolli nag moom Lat Diop mii sàcc la Lat Diop ci yéene kaay bi ne ko tontu du forox maire bu Golf Sud bi laatal su ma ca noppee danaa la tontu yow Ousmane Sonko Lat Diop ne ko man duma Aliou Sall duma loo mari mbax rek mati mbax la ko moom Aliou Sall moomee l'évidence yéene kaay ne ma ci géeja waaye lay xëccoog Ahmed Aïdara waaye nag sondage yi xam le nan ni Ahmed ay jël ndam la en tout cas élection locale yi source aane ma ña ca virage bu mujj bëre ndax bulletin de vote yi ak document ya muy àndal daañu leen yóbbu ci préfecture yi ak sous préfecture yi réew mi quotidien ne Zahra Iyane Thiam moom nee na yi la élection bokkul sax ci xalaatam critique jàmm ak dal waaye tam xamle programme ba majorité présidentielle bi am sa Thiès Ouest googee moom ministre de l'artisanat xamle ni jàmm rek dal rek ci la lépp xaj Pape Amadou Ndiaye ne waaye faaw ñu xam ne programme bokkul te liggéeyal Thiès moo ñu tax a jóg <laughs> le quotidien le ne ñiy liggéey Sénégal xam leen ni péage bu Marsassoum ña koy jëfandikoo ne ñu nañu wàññi tarif yi étudiants ya nekk ci université Gaston Berger it ña nga ca xiifal ca Sédhiou 24 heures ne ma ndongo yaay gréew ndax amuñu professeur direct ci news ne ma ñaari weer ngi ni jàngalekat yi nekk ci gréew gisuñu société civile Sud Quotidien xamal ma ne SAEMS ak USEMS day nee ñu daañu perturber njàng meeg njàngale mi bu dee gouvernement bi àdduwul ci ñoom L'Enquête Quotidien jox kàddu Mamadou Amadou Ly conseiller la woon bu Abdou Diouf mu xam le ni société nationale yi nekk ci réew mi dañoo échec ñu wax ko te faatu mbaate dund réew mi Quotidien ne ma ànd sàmm jikko yi daañu manifester ñaar fukki fan ci weeru février gi ngir ngóor jigéen gi ñu bëgg daganal ci réew mi du am en tout cas le témoin yéene kaay ne tiit jot na de bi day ay munitions de guerre la daal di teg loxo conteneur la yoo xam ne ay munition de guerre la def ca port autonome bu Dakar lañ ko jàppee libération yéen kaay ne ma ñeent ci marin ukrainien teg nañ leen loxo te boo xaymaa la ñu jàpp toll na ci ñetti milliards ci suñuy koppar booba l'évidence mi ngi may xamal ne daan ya ñu teg ci ndoddu Mali day Sénégal a nga ko yëg ak askanam Dakar Times ne moom Bamako ci boppam espace aérien am léegi Russie la ko jébbal laas ne ma jàppal ne léegi biir buy daw bokk na ci symptôme bu variant omicron bi bu leen fàtte ni mi ngi ci réew mi te day faat yendu leen ak jàmm.